liñ leen fiy wax ci ay bien yëpp du ko am jarul ngeen dem bu tee ko làqutu de Sénégal ñoo ko bokk kenn mënu fee def kenn mënul xam li gënoon a yomb gënoon a simple tey jii xoolal gouvernement bi ni ñuy doxee rek maanaam nga xam fi mu toll nii kenn du fi yor ñaari post gis nga Birame Souleye Diop mi nga xam ne nii wala député la woon yaakaar naa ak xam nga yaakaar naa loolu tey jii Amadou Ba moo koy féetewoo moom kay benn poste rek mooy tax nga mën a doxal liñ la jox maanaam. voilà kon loolu voilà goré di daal moom dong lañ fi gis te leen leneen li ci des moo di maanaam da ngeen a matewut ay njiit rek loolu la rek parce que wax dëgg yàlla am réew ko bokkee li ci nekk li nekk ci réew mi yëpp lépp mun leen koo lekk waaw bala nga bu maanaam lépp bu fekkee da koo nar lekk dañ leen di fi daaw xam nga fi daaw maanaam du ngeen ko fekkee voilà parce que askanu lëm bokk ñu war koo teg ci maanaam ñu war ko ñu war ñu war a seq taabul waxtaane ko kenn ku nekk jël si sa wàll yéen ngeen bëgg a jël lépp akimoo ko maanaam bëgg jël ay terrain bëgg jënd ay nag bëgg a jël ab xaalis denc fu ne ngeen dugal fa seen maanaam loolu yëpp goree di la ñàkk ngor képp képp képp la voilà ñi ngeen koy dénk tamit di ko jaarale seen i compte ay sàcc lañ comme yéen ngeen doonee ay sàcc looloy dëgg ngeen baal ma looloy dëgg parce que foofu la réew mi toll xoolal réew mi ni ñu sonnee wala réew mi dund gi mu fi seeree xoolal diwlin gi xoolal meew mi nga xam mayu mayuñu dara dara dara dara sénégalais lambda yi voilà yéen na ngeen i góot yéen ngeen i noosaka gundaan ndat wala seen i dépp fees naag ceeb ak diwlin ak yëpp yéen a ngi añ di ree loolu sax man ko ko mën a nelawaale sax dafa may jaaxal moo tax loo ci gis bu ngeen sàccee rek léegi seen biir ngande te seen biir yooyu ngande yooyu noonu xeer yu tàng jër leen leen koy reesale ëllëg yowmal xiyaam de parce que da ngeen a boole askan bi yëpp waabale lekk ko te loolu baaxut nekkul loo xam ne lu lu lu ngor la waaye gis nga ñii lépp lu ngeen doon def rek di ko dana leen ñoom danañ leen jaral parce que ñoom dañoo ñëw pour liggéey waaye du tee tamit dafa am ñoo xam ne spécial pour audit leen maanaam dootu leen yàqal dara ci leen war a liggéeyal Sénégal maanaam tey ji chroniqueur yeeg wala tiktoker yeeg yëpp. fu mu ne toll nii ñu ngi ci seen i dossier ñooñu moom lépp lu ñu gis loo xam ne yéen a ko moom danañ ko signalé of nag bu ko defee nag mbaqus bi ñëw parce que ñun liggéeyuñ woon comme liggéeyuñ nag te amagul liggéey te ay centre yi ngeen maanaam di ngeen waroon a bi ngeen waroon a jël defar ko ay centre orienté ci nit ñi defu leen ko seen doom ngeen ko jox seddoo ko ci seen biir ak seen i famille bàyyi Sénégal ñuy wër di voilà di gën a sonn waaye loolu de du leen jig de gaa yaa ngi seen kaw de du leen bàyyi benn yoon.